ahlan bikum ambassadeur bu réewum Chine fii ci Sénégal ma ngay dalal xelu waajuru étudiant ya nekk Chine fa jàngoro ja xam nee na ña nga ca jàmm ak salaam te li gën si ñoom mooy ñu bañ leen a andi nañ toog ca seen kër ya bañ a génn moo leen di musal ci jàngoro ji kàddoom yaa ngi ci la Soleil yéene kaay ambassadeur ba yemut fa joxe na bilan tolluwaayu jàngoro ja yaaw seetal nee na juróom-ñetti téeméer ak fukk ak benn doomu aadama jàngoro ji rayegum na leen fanweeri junne téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama xam nañ jàngoro ji fi mu toll nii waaye nag faj nañ ci lu tolloog ñaari junney doomu aadama ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent kon kay nee na Chine réewam jàmbaar lañu am nañ organisation wàllu paj ma ña nga cay bay seen waar li waar mu njaay siise njiital ONG 3D mooy lan moo tax rapport Cour des comptes bi mu génnee njiit réew Macky Sall jëlul benn daan teg ko ci kaw ñi nga xam ne ñoom lañ ci tudd ci Sud Quotidien ma ngay xam le ne li jaadu woon duut muy wax naan danañ corriger danañ jubbanteeg teg fi ay commission déedéet fa waroon a dàq kaj ji képp koo xam ne tudd na la ci rapport bi ci ak jalgati l'observateur na ko xaw ma kan lay Macky sanctionné waaye Cheikh Oumar Anne moom génnee leen ko ci kooku Macky xalaatul ko sax ndax li dox seen diggante secret ànd bu yàgg la a ah, yaaw seetal Cheikh Oumar Anne bàyyi AJ/PADS bàyyi Ablaye Wade ànd ak Macky ca ànd gu njëkk ga te lu ngeen xamul Cheikh Oumar Anne nekkoon na fi professeur u soxna Marème Faye Sall jàngal na ko moo tax kenn du ko laal de ñu laal nag kaj ji ko dàq ko jëlee ko place am ki fi nekkoon ministre Abdou Latif Walfadjri yéen a kaay ma ngay xam le na rëcciwut ànd gi mu ànd ak Macky te waxu démbam nag mooy waxu tayam la mu ñu wax tey moom turbine yéen a kaay mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ci tas la jëm APR ci tas la jëm bu fi Macky bàyyeekoo ndax parti bu amul benn kilifteef xiiroog ŋaayoo baa nga mel ni tulleeg màlle ba tax yéen kaay bi nee na am na ay responsable APR yu mag dajaloo nañ waxtaan secret ci seen biir ngir fexe nañ la ñu téye parti bi ëllëg su Macky demee ak laata muy dem sax yéen a kaay bi ne Benno Bokk Yaakaar yi parti yu bëri fi mu toll ne fa ñoo mer gisatuñu seen bopp l'évidence yéen kaay mel ni ku naan leen bu ñëpp defee ni Mimi de APR moom du ma sa tas ah ndax ma nga yokk doolay APR ca grand parti la dem nangu seeni militant responsable grand parti ba ñuy wax Bokar Fay ca Kaolack ndangaan dem na APR jaare ko ci Mimi leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne kër ga ñuy wax koppeewol ci daanu tëj ay buntam fa la jëm de a yow seetal laas yéene kaay moo ñu xamal na jafe-jafe yu du xaddu jeex ca la nekk campagne yu ranu gerte gi baaxul santu yàlla ci ñoom ba tax ñaar téeméer liggéeykat ci ñoom dàq nañ leen te nar nañoo dàq ñeneen nag milliards sur du quotidien ne campagne njaayum gerte gi kay état bi moo ci def lu ñuy tuddee médecin après la mort bàyyi ba daay gi lakk nga ñëw naan yaa ngi fay fekk passé na ndax mesure yi nga xam ne la état bi jël fi mu nii mooy tere bu kenn jëndati gerte di ko génne bitim réew sur du quotidien ne loolu nag fa koo yéex a def ndax fi mu nii gerte gu nit jënd sax di ko yóbbu bitim réew fa fee xamati gerte raw doom bu góor jii fa ko waroon a teel ca diwaanu Kaolack ndangaan ci njiital président Serigne Mboup njiital chambre de commerce bu Kaolack seen assemblée générale ba nag xamal nañ ko ci anam gu mucc ayib Moustapha Cissé Lo nag doxee na fa ñaawlu lenn ci doxalin wi xam ci frontière Sénégal ak yeneen réew yi wàllu corruption gerga ma ngi fay jaabaa joon la de kàddoom yaa ngi ci l'évidence yéene kaay te loolu baaxut leneen lu baaxut lu dal ci armée bu Sénégal rawatina douane mooy ay takki der ñoo leen attaqué seen dalwaay ba nekk Moussala diwaanu Kédougou sàcc fa ñeenti ngàndaay ba pare bindi leen bataaxalab tëkku bàyyi leen ko fa source ay yéene kaay na loolu nag lu garaaw la leneen lu garaaw ci ak tappale jëm ci ay visa itali ka ñuy wax Petit Mbay ak Djidiack Diouf ménagère bu Viviane Ndour kat ñoo ko xamal nee nañu libération moo ñu ko xamal takk dere nag nañ def ba teg leen loxo yéen kaay bi leeral na ko la mu leeral moom fi fi Ndour nday mbilli gi mooy ne yoonam nekku ci te dana porter plainte sax ci critique yéen kaay nee na li ñu def ci sama kaw fa ñaaw yéen kaay bi na ko gaañi kay ci sa tour lañ doon jël di organiser ay concert Italie yoo xam ne daraa ca amut bind ay nit naan ñooy musicien yor guitare gaa kële yor laa fekk na yoo ñu bëgg dem moodu moodu yi la fay ñetti millions wala ñeenti million teg nañ leen loxo te ca kaso ga nag lañ jëm nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy galaa de lutte bi xaadim sàmb organisé woon ay xeexoo joxante ay arrêt yu métti moo xam ci kanam jëruñ ji dénk tàggat yaram ba tax Alioune Sarr njiital làmb ji ñaawlu li ni mel Bécaye Mbaye na ko lii koy fa yàq deru làmb nu làmb nag moo ñu ko xamal la ma ñu xamal moom source ay yi ne kaay mooy jabaru waaraatekat boobu ñuy wax oustaz Omar Sall Abadou Rahman xam nga jabaram ji Awa Ndiaye fa ñoo ñu ngi koy wër léegi nag mujj nañ koo gis Touba Vox Populi ne waaye bañ ko gisee soxna si lu leer la wax man kenn sàccut ma maa génn sama kër jëkkër nag te maa daw nag ndax sama jëkkër Oustaz Oumar sàll fa may fitnaal di ma bunduxatal di ma toroxal métital xoqatal lu ne fa ma koy def coono ba ma fa nekkee mënuma ma koo nettali doomu aadama moo tax nag ma daw génn fa te parewu ma faa delluwaat nag xanaa ngeen rey ma xalaatuma ko li ma bëgg mooy ñibbi suñ dëkk Kawlax ndàngaan laa dëkk benn dëkk bu ñuy wax cubbeen ma nga ca kër ma jabal